jaajëfatee jaajëfatee sama gars Mr. Mister Shake la Brooklyn New York gars comme ni le savez, le soleil n'est pas rendez-vous actuellement actuellement commencer à taw sax je profite de def une vidéo bu gâte. ci événement yi fi am mais surtout dama bëgg wax ci nervi les nervis devenus gendarmes. parce que man de violence, jëloon sama temps 17 ans. vraiment euh, Macky ni mu doon jéem a fexe ba yàq marche euh, Barthélemy Diaz en tout cas Barthélemy Diaz dafa ne woon dafay dem euh, fële nu mu tuddati euh, tribunal Macky Sall ne doo doo dem mais lan la ñu gis gendarme yi la ñu gis ne ñoo gën a xarañ te gendarme yooyu ku leen xool sa xel mun na ñaaw que ne ñii ay nervi lañu parce que man ay ponkalu maam yàlla laa gis <coughs> ay ponkalu maam yàlla te nervi yi Macky Sall yoroon. Je ne sais kenn qui ci mais lan la ñu gis les gis nervi non seulement dañoo ponkal mais les sol ay yére plastique yoo xam ak casque yo vraiment boo ko xoolee di nga xam ne ñii xeer mënu leen dal dara donc qu'est-ce qu'on a vu on a vu un Macky qui s'est réarmé n'est-ce pas qui a fourni à la gendarmerie un matériel de répression tout neuf ces policiers qui sont n'est-ce pas, euh, euh, comment dirais stimulé, dopé par ce nouveau matériel, on a vu un excès de zèle de la part des gendarmes, surtout, qui ont malmené, qui ont tiré à bout portant sur des manifestants dégg naa sax ben garde Sonko dóor nañ ko ben bal fi ci ci ci bakkan bi imam Babacar Ndiaye moko wax mais li lan ci meuna jang jàng ay nervi Macky Sall jël suñu xaalis vraiment yi boo koy wax da ngay bëgg jooy sax mais ñun du ñu jooy parce que ay patriotes lañu mais vraiment Macky Sall ku mu yàpp Macky Sall jaam yëfu jaam dëgg la def ndax yow xaalisu senegal xaalisu Sénégal moom nga jël l'argent du contribuable moom contribuable moom nga dem jël jënd ci ay dragon ay millions dëkk bi nit ñaa ngi xiif nit ñi lekkuñu nit ñi naanuñu yow nga jël ay milliards nest jël ay nervi dugal leen ci gendarmerie bi loolu lay ndurul loolu lay ndurul ana nervi ponkal yi ma gis duñu ay policier boo leen xoolee sax ñu doon hésité nga xam ne ñii ñu ay professionnel mais nag dañ leen entraîné entraîné entraîné wax leen il faut ngeen soxor il faut ngeen di tiire ku ko ci deful dinañ la dàq noonu lay demee fay leen xaalis bu bëri mais xaalis boobu kan moo ko moom ñun ñoo ko moom mais Macky Sall moo ñàkk jom Macky Sall mooy jaam ndax yow bañ la fi jekkoowee 8 mars moo taxoon ma ne leen bañ ko jekkoo waruñu koon bàyyi mu rëcc parce que man xam naa Macky Sall yéen yéen a xamul Macky Sall ngeen may wax ay Serigne taxaak ay coup d'état lu ma xamul fi mu nekk nii kenn waxu kenn bañatu coup d'état ndax koo xam ne dafa jël ay milliards jël suñu ay gendarme suñu ay policier ñu wër leen Dakaaru Njaay yëpp di dóor nit ñi ah vraiment lii lii lii dafa ñaaw waxoon naa leen le 8 mars war ñoo ko ñu bàyyi mu rëcc waaye moom Serigne Mountakha wax Ousmane Sonko bàyyi mu sedd Ousmane Sonko bàyyi mu sedd mag Sall ba mu ñëwee lan la wax je vous compris je vous ai entendu dégg naa leen xam naa li ngeen di wax nekkate boobu li muy wax yëpp mu ngi mattu mu ngi fuñaaral ba mu ba ci biir ba yëf yi sedd ci la dem di wax li fi amoon doot fi amaat vous savez le Sénégal est un pays de démocratie c'est pourquoi il n'y a pas eu tant de morts xam nga mais lu fi amoon du fi amaat gertu di mattu di fuñaaral moo tax mu dem jël suñu milliard jël ay sambabo yoo xam ne tekkiwuñu dara ay mbër raté de de d'anciens lutteurs ratés qui n'ont qui ne passaient leur temps qu'à, n'est-ce pas, au gym, n'est-ce pas, sur les plages, en train de se pomper les muscles. Ce sont, n'est-ce pas, ces gros bras sans cervelle, n'est-ce pas, qui se sont retournés contre leur propre peuple. Nous sommes des patriotes. Ouais, Ousmane Sonko, vous avez yéen ñëpp dinañ leen gis non seulement dañ leen di dàq ci gendarmerie bi mais dinañ leen atte parce que yéen ay jaam Maxal Macky Sall des jaam la def ndax yow amul daro lay def lu sa jeunesse ah parce que Ousmane Sonko xalé yi rek ñokoy koy gunge kenn gunge ko lu xalé yi xalé yi rey nga ci 14 mën nañ wax ne Macky Sall yaa rey xale yi 14 waaw am na ñoo xam dañ ne yaa leen parce que ya bay policier yi di tiire di tiire di tiire 14 xalé dee xalé yi ay 20 ans la ñuy am ñi ay 14 ans ñi ay 15 ans tay nga ñew nga ne nga ne lu mu tuddati da ngay ñëw Barthélémy Dias du bokk ci élection yi. non seulement yow yaa ngi jël suñu xaalis nga ci jënd ay matériel pour xeex ak nit yi ngeen baal ma ngeen baal ma bi mooy New York bi mooy New York chaque instant rek chaque instant am na lu xew yow yow nga jël suñu xaalis ah jënd ci ay chars de combat ba pare ngeen nga ne xanaa sax da boo xaaraatoon sax ba ñu tooñ la mais yow yaa ne Barthélémy Dias du bokk ci élection yi est un adversaire adversaire coriace donc je vais l'éliminer parce que je suis un lâche parce que je ne veux pas n'est-ce pas m'affronter à lui même chose à Matam même chose à Saint-Louis mais heureusement gis nañu yenn juge yi xaw leen wax ñu dellu ginnaaw juge ñu ñu jël sen responsabilité parce que xamone nañ ni du façon yëf yi du du jall ba ngeen giseen ne réew mi mi ngi tàng ngeen ngeen ñu annoncé di wax ne maatam léegi dinañu bokk ngeen ñuy wax ne fan tamit dinañ bokk fan dinañ bokk Mbuur dinañ bokk fii dinañ bokk fële mais yëfu jaam yi ngeen def jeexagul fépp fu ñu war a bokk dégg naa waay léegi bokkaat nañu Sam Notaire bokkaat nañu euh, Golf Sud mais loolu doy ubbi leen seen bët parce que nee naa leen Macky Sall plan A lay am mooy sàcc bu plan A baaxul no plan A mooy mu génn leen doo leen sax bokk parrainage éliminer leen bu baaxul mu jema xol xool leneen lu muy def pour sàcc bo leen toppaate lol mu xol leneen ba zedd du mës a bàyyi Ousmane Sonko nak limu wax nako def marquage à la culotte ba 2000 du ma du ma wax 2024 2024 du fa sori ba le 23 janvier marquage à la culotte duñ ko may dara. élection yi bu ko saccé na ñëpp génn ñu xol ndax Macky Sall dina tirer ci population bi ku mu fi rey bopam la ko def ku mu fi rey ben xale bu mu bu mu bu bakkanam rot ci yëf yi. lutax mu daw demba parce que xamna na ne sañul tiire kenn parce que aduna bi yëpp France 24 mu ngi koy wax euh, euh, fep fo dem euh, TV5 ñëpp commencé wat nañu braquer seen bët ci Sénégal Macky Sall tapet la waaw bu dul woon tapet dina du daw lutax mu japp Sonko gaay def seen conférence de presse ci 5 minutes 10 minutes 15 minutes dégg na ki ba imam Babacar diko wax imam Babacar Ndiaye ah VDM tak dégg na Caaroy commencé wona tak Casamance commencé takk rek mu tiit mu daw nii nag lay demee yéen seen policier yi ngeen jël ah materiel bi ngeen jël entraînement yi ngi leen defal ñu cadré Dakar mais na nga doon comprendre policiers yi ñu nekk fépp Sénégal dafa rëy Sénégal Casamance la Sénégal Saint-Louis la Sénégal euh, Tivaouane Peulh la Sénégal Diourbel la fépp fépp fépp mënu leen nekk partout moo tax gis nga gars yi dañ leen bàyyi fi ngeen nekk ñu taal VDM bi ngeen tiit Macky salla li mu war a comprendre ak waa APR yi fi nekkoon di dëmm dëmmlu di doul di dajale di wax da ngeen di génn wa Cogère ay tapet ngeen parce que xam ngeen ne mënu leen génne kenn bo leen fayul ay nervi ben Sénégalais du leen du du du du du génn daan day xex ak yéen Sénégalais dañuy lekk sen 10000 mille lekk seen vingt cinq waaye am na si ñoo xam ne sax duñ leen sax votel waa APR ñoo leen njëkk a bañ ñoo leen njëkk a yàbbi waaw vraiment lii lii lii dafa ñaaw gis nañ ne ku mel ne xaw ma Abdoul Aziz Fofana lu tudd xaw ma nu tudd Fofana di génn ah ñu koy jël ay Sénéweb les médias complices complices les médias n'est-ce pas alimentaires les médias euh, euh, comme le commissaire commissaire Sadio y un article bu doy waar fait vous dafa leen dal fait ñëpp dal kaw Nous loolu nous soxla dañu soxla ay nous, nous Nous dañu nous Macky Sall ñun ragal lu nous, na nous, commissaire Sadio nous ko parce que loolu rek la xam mais Ousmane Sonko nous du ñu d'autres nous bàyyi ngay noggatu kenn Macky Sall gis nga 2024 Macky Sall man gëmu ma dina ko gëmuma ko balaa 2024 il faut que mu rey ay nit parce que xol bi moo bon xol bi moo soxor waaw waa APR nag seen bopp ngeen di yàqal Macky Sall jënd na bàyyi nañ ko mu jël nervi yi dugal ci police mais boppam lay yàqal ndax képp ku mu fi rey képp ku mu fi rey moom bakkanam mu ngi ci xottu gerte lan moo tax mu dellu ginnaaw démb Barthélemy Dias li mu leen wax leer na da ngeen yor ay fital ñu yor ay fital billaay barke rasulaay loolu leen Barthélemy wax moo tax ñu bàyyi ko mu jàll mais lii dafa ñaaw man affaire nervi bi nag gisuma kenn wax ci waa Seneweb dañu ñoom ñoo jël ay ay article gis nañ foofa nag article bu bon boobu ñu jël ko teg ko ci kaw parce que dañ leen di fay xaalis Seneweb bi dañ leen yóbbu ba Dubaay nga nekk fi di ñaawal président Sonko naan dafa daw Abdou Aziz Fofana la xawma nu mu tudd naan Ousmane Sonko ah ba muy daw di làqatu ndiggam mettul parce que ba muy dem xaw ma naan ci Adji Sarr suite boote def na woon ndiggam day metti ndi dof am na ñoo xam ne ñii jarul sax nga leen di tontu jarul nga ñu tontu ñi ngi koy ñuy war a attaqué mooy Seneweb di bind ay article yu bon nan Ousmane Sonko dafa làqatu ci magasin ak dugg na fi ak Sénégal ñun xamnañu vous êtes des médias corrompus xamnañu lolu mais xolal ñun Sénégal la ñuy xeexal te Macky Sall du toute façon Sonko war nako ni du morom ndax limu def demb daw la motax mu japp Sonko en 15 minutes mu bayiwat ko 15 minutes conférence de presse mu bayiko parce que Macky Sall xamna né amul doole nit ki nak bo ñemewul sëgg bëré mais ngal la ngal la démissionnel wax ci yëpp la démissionnel parce que ñun duñ la bayyi ngay sàcc élection yi Sonko nak buñ ko may benn commune. Wow, affaire 2024 affaire le 23 janvier la duñ ko may dara dinañ duma mairie élection législative député APR perdu, les députés trafiquants trafiquants de de visa tout ça une ne peuvent pas. Nous boo leen élection ñu yëngal jëlee leen fi ben une bonne fois pour toutes dootu leen am benn député mu mel ne lu mu def Guinée bu loolu ngeen bëgg nañ ci dem boo leen xel da ngeen da ngeen di dawal yoon ñu gañe leen ngeen nangu comme ça sax ngeen APR daal di exister mais Macky Sall dafa ndara yàq APR comme Alpha Condé nu mu yàq RPG Guinée gars yi like leen partagé leen abonné leen bu ci kanamee dinaa ci def live incha allah day day taw mais taw bi dina arrêté dinañ ci def live heure secteur heures Sénégal merci vive le président Sonko vive Barthélémy Dias jaajëf ba si kanam